Moussa lu jëm ci jubo bi ak bennoo bi mm-hmm. ak euh, jégalante bi mm-hmm. ndax loolu dañuy fàtte mm-hmm. ni am na ñoo xam ne dañu jël ak ay cocktail molotov sànni ko ci kaar bi ñu dee am ñoo xam ne dañu taal kër metre laa Hadji Diouf ni mu koy waxee tout le temps ndax jàpp nga ni loolu ak yeneen ak yeneen ci ay ñaawteef ni mu amee ba mu ni mu koy waxee ni mu amee ba ni mu koy waxee mel ni man maa ko wax d'accord alors ni mu amee euh, alors mais mm-hmm. li tëfee loolu taalee sama kër ni mu amee. <laughs> mais maître d' accord alors ni mu amee waxal ni mu amee. d' accord jërëjëf ni mu koy waxee ni mu amee. d' accord maître alors. Moussa. Mm-hmm. ndax da jàpp nga ni. Mm-hmm. dañu war a dem ci ni ko président waxe ngir jàmm am. ñaaw teef yi nga xam ni Sénégal dund na ko te mosuñu ko dund. ñu fàttee ko noonu. ñi ci ñi ci seen bakkan des. seen njaboot perte. ñi ci seen alal des. ñu perte seen alal. ñu daal di dem nag ci. Euh, jubo ndax jàpp nga ni euh, noonu ko président bëggee noonu la noonu la gënee pour yow waxuma ku ci deewee ku ci sa sa kër yàqu ko maître El Hadj ku ci gaañule ñu ngi lay massewu c'est de trop dans une démocratie mais Pape jàmm loo ko jëndee jar na ko minimiser wuñ benn dégât guerre mondiale après demuñ fi conférence de Yalta woote wuñu waxtaan fa lañ mujjee Pape réew mi mooy laaj jàmm à ce niveau là je d'accord avec vous par moment le président di nañ fàtti suñu ay jëm damay bëgg laaj kii sama grand moom boppam lay waxal wala xalifa lay wax ndax xalifa bi ma xam tëj nañ ko prison sax mu dem dialogue ji pour l'intérêt du peuple sénégalais lañ koy jiiñ mu nii dañ ko koo def waaye terewul mu dem dialogue ji bu ma yaakaar ni les mêmes procédures bu fekkee ni dafa jàppoon ni dialogue mooy indi jàmm dialogue mooy indi dal ni mu demee woon dialogue ji def naa ni bii mooy rawati ndax kat si ma déggulee dinaa laaj itam sama xarit Amadou ndax ba léegi Sonko koy jomaay am déet wala daa am soppeeku ci diggante bi parce que li ñuy woote rek mooy jàmmi Sénégal Pape li xew Sénégal ku ko rafetlu moo xam cocktail moo la ban soppeeku moo ci am. ban soppeeku moo ci am. parce que ci li mu waxee. dama yaakaar ni dafa am maa ngi koy dégg wóoruma te bëgguma tooñ naa ni ça se fissure dans le camp que nit ñii dañ bëgg forcément ñu dem élection déggoo ma ni wóoruma je le fais avec des pincettes ndax man bokk ba ci ñi gëm ni man rek am dëgg. li ma wax rek a baax bokkuma ci ñooñ de je nuance mes propos mais je suis un acteur politique di déglu ci mbedd mi di déglu seen i ay nit déglu seen i ay ñooñ ma ne ndax mbaadu loolu ndax kat jàpp naa ni ku nekk Pastef donte jomaay ñor na la situation Sonko war na la gën a mën a ñor président nii am na ay fait am na ay situation amnistie li tax mu judd mooy naam nit ñi nangu nañu ay fait am na waaye ñu ne réew bu tollee fenn jàmmam day laaj ñu teg lu bari ci suuf donte am na ba pare may wax ni ki nu jiiñ te jugé guñ ko day am présomption d'innocence dañ ko ko foog yaakaaree ko parce que man dama bëgg lu may wax muy leer bokk ma ñi ñi jiiñoon démb Badio Camara les vidéos sont là ah conseil constitutionnel man ànduma lim def de waaye dama nangu lim def jiiñu ma ko dëmm jiiñu ma ko nooxóor jiiñu ma ko te les vidéos son la ñi ko def son la tey bu ñu soppeekoo di leen ragg il sont selon la géométrie de la vérité man nag fa ma newoon laa ne ba léegi comme le président la République je prends du conseil constitutionnel li mu wax donte am na lu ma ci neexul ma bës sama bopp président ni pour jàmm ji daal pour réew mi daal ñu ngi woo ñëpp ñu waxtaan parce que ñett ñi yoo gis ci mbedd mi moom la ñuy wax parce que réew mi dafa demoon ba fitna kenn liggéeyatul waaw jàngeetuñu yow booy liggéey si soxna si boppam du am dal ci yow amul menn réew muy am développement di am. mais nag am na ñu am projet boo xam ne na lépp yàqu na lépp maam na lépp bon ñooñu bu ñu wootee jàmm dañuy indi problème bu bañ am jàpp naa ni man laa wax mën na maa juum. jàmm loo ko jëndee jar na ko ndax balaa nga naan naam ne fa. loolu ñu woote nag et puis mu nekk servir de leçon pour man moom ñii xam ni politique jongante xel la loo ci def ëllëg ba loru mën na laa porte préjudice violence boobu mënoon naa ñàkk taal kër yooyu mënoon naa ñàkk dee yooyu mënoon naa ñàkk waaye bu yooyu yëpp weesoo pour ki ñu dem ci jàmm dem ci daal bañ mu yokk. day am taxaw seetlu taxaw waxtaan moom président ñu xas ko xaxar ko saaga ko wax ko lu nekk mais mu ne je prends ça parce que réew mi ji na ma loo xam ni yéene laa ko loo xam ni bëgg naa ñu weesu loolu te lu foofu lay xaar ku mel ni le le le président xalifa Sall qui est un grand démocrate donte fan yi gis naa ni même ci kàddoom yi xaw na waroo ak ses anciens amis ndax boo déggee ci biir waxam. ni muy waxee banaan man su may dem dialogue kenn duma ma ci forcer heure bu ma neex demee. parce que je l'ai voilà je l'ai connu. ndax les positions réservistes. Mm. ndax situation actuelle bi ñu am ak seen mbokk yële moo ko waral parce que je l'ai connu constant je l'ai connu élégant je l'ai connu républicain te yaakaar naa ni ku bëgg réew mi war ngaa fàtte sa programme électoraliste jiital réew mi sama xarit bii attestation mandataire mi le 25 lañ ci def waaw bu élection amatul le 25 ndax bi baaxati na. xëy na maître gi diñu d'accord merci beaucoup alors d'accord léegi Amadou euh, li nga xam ni président yëkkati na ko mu jëm ci wàllu euh, jubo su ko waxee seen kandu ci génn euh, ci jubo boobu su waxee lu jëm ci wàllu amnistie daanaka itam seen kandu ci génn ba ci li nga xam ni dégg naa Atepa Goudia bi wax ko mooy waxtaan na ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko ni ko waxtaan mën nañ ci d'accord mais day fekk d'abord dañu génne ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi ñàkkul itam am na yeneen argument yu mu teg alors kon li nga xam ni ci la ñuy wax nii mu mel ni donc dafay mel benn genre deal buy am entre euh, Ousmane Sonko ak ñi nga xam ñoo nekk ci état bi notamment le président Macky Sall jëm ci wàllu askan wi ndax loolu yéen mën ngeen ko revendiquer ba ñu jëm ci wàllu dialogue ba ñu jëm ci wàllu liberté provisoire ba ñu war a mën a egg ci amnistie jërëjëf sëñ Pape <clears throat> xam nga déjà président Ousmane Sonko nit mënu ko waxal jàpp naa ni déggoo ko mu wax donc képp ku ñëw toog ni la président Ousmane Sonko nee na wala def na jàppal ni sujet à caution la. ba ci euh, Pierre Goudiaby Atepa. bi ma ni la Pierre Goudiaby Atepa lu mu mën a wax mënul engagé Ousmane Sonko. mën na jël mais mais Amadou Ousmane Sonko ñaata yoon li ma wax dafa leer non non baal ma rek mm-hmm. ñaata yoon la fi xew-xew am mu bind ci page Facebook am ñëpp gis. lii la xalaat lii la bëgg. Mm-hmm. xam nga président te boobu ba léegi kenn dégg ko ci ci report bi ba léegi. au contraire report bi kay ci nga ko dégg. ok dégg nga ko lu bëri. ci report bi waaw. ndax rapport bi damaa gis ni yan député nga gis bi ñu koy voté. non mais taxawal maa ngi ñëw danga may may maa ngi ñëw mais Amadou nag bul danga may may maa ngi ñëw xam nga li ma la mën a wax mooy li mu noo toog fii kenn kenn ñemee taxaw engagé président Ousmane Sonko amu fi. tool kan moo ñemee taxaw fii ni président Ousmane Sonko ci wàllu rapport dafay waxtaan ak Macky Sall lii la waxtaan ak moom lii la engagé wu. da koo déggagum coow li bëri na wax ji bëri na kan moo ko fi ñemee engagé gis nga dafa am yoo xamante ni du ay fo jàmm moo gën lépp. xëy na bu yoroon langage yu jàmm depuis le début yëpp duñ ci fekk mais si ay responsabilité euh, dafa nekkul loo xamante ni euh, ci circonstances yi ñu ne amal na kenn njëriñ l'essentiel mooy amnistie amnistie dafa am lu ko jiitu mooy vérité vérité moo jiitu amnistie. ndax amnistie mooy pardon moom moo ko woowee pardon kan moo pardonné kan askanu Sénégal moo baal kan kan moo tooñ ñi ñu jàpp ñëpp jugé ñu ci kenn donc amnistie boobu bu nee c'est une loi de pardon dañ koy laaj kan ngay pardonné kan moo tooñ moo tax ma ni bi procureur génnee nit ñi may leen ay liberté provisoire ak yooyu ça laisse l'affaire pendante devant la justice tôt ou tard dinañ ko régler tribunal di procureur dina mës a présenter xam nga ñoom dañoo juum bi ngeen sonn ci amnistie di def pardon xam nga lu gënoon a urgent nan ngeen di modifier code de procédure pénale bi jox doole procureur muy tëj nit ñi cent sans parfois preuve en visant juste certains articles le mandat de dépôt est obligatoire code de procédure pénale moo am problème sinon di ngeen def amnistie yu bëri président bu ñëw di nga def amnistie yu bëri nan jàppee nit. deux ans trois ans nga xëy suba ni ko génnal dem sans jugement loolu ngeen waroon laajte ñi ngeen di tëj demal xool commission d'indemnisation. génnal dem ak liberté provisoire aussi. non wax déet yàgg na fee am. ñaata nit génnal boo nee génnal dem dafay mel ni am na ñoo xam ne am na liberté wala définitif la am na ñoo xam ni amuñu liberté provisoire. dañ leen a denc xëy suba rek ñu leen génn leen non fii fii moom gis nga moo tax man la c'est le au-delà amnistie si y a un problème avec notre code de procédure pénale qui ne respecte pas les droits humains nañ ko nangu parce que ku mu dal sa kaw rek nga comprendre deuxième élément bi am. yow dal na ci sa kaw. ñaata yoon mais. non bu mujj bi laa wax. bien sûr sama sama sama def naa ba sonn pour ñu lever ma sax sama sama contrôle judiciaire parquet bañ na te te je représente pas un danger jàpp naa ni pour pour le pays ma danger pour le pays mais bref sama cas du mu am solo. li am solo ma la koy wax mooy amnistie du moom moo ni dafay amnistier nit ñi mhm. amnistie nag des koo liir loi la wax da nga koy teg ñu liir ko saytu ko bu baax. bu yemee ci feewu terroriste yeeg yooyu. déedéet du question boobu non non non non ngeen d'accord xam nga dégg nga ma la xam nga da wax sànq dialogue. waaw ci usmaan Sonko. waaw moom mu ñëw ni xanaa Ousmane Sonko nekkul Diomaye ma ni ko dañoo fas yéene wul te Ousmane Sonko fas yéene ko. jënde candidature am ci démocratie état de droit damay ñëw leeralal la foofu Ousmane Sonko génnal kaso nga nekk élection ñu jël décision conseil constitutionnel sànni fële mu ne la mukk c'est que ñun dañu dul ay xale yu ñuy naxe tàngal boobu. Mhm. le problème mu Sénégal Macky Sall moo dem jël ab décret sans consulter kenn sur la base de simples soupçons. simple soupçon magistrat yooyu ngeen jiiñ ba heure bii chèque yi ngeen waxoon encaissé nañ ko gisuñu ko da ngeen ni woon dañ leen a jox xaalis du loolu nga dégg dañ leen ko romb ñenn ñi trafic d' defal ndànk yooyu ay fe la boo koy wax yow yaa yor commission des lois. dégg président may ma ma ñëw. commission des lois nga yor yow commission. qui a fondé le commission d' parlementaire. warul woon a am mukk ci dëkk bi. sur la base de soupçon. parce que loolu c' est pas l' esprit d' une commission d' enquête. commission d'enquête boo ko bëggee def. waaw fee yi il faut mu am lu ñuy wax un minimum de consistance. ñu tegal la dara lu niru ni le juge là peut être corrompu yéen tegaluñu leen dara lu dul verbal te sa commission d'enquête bu ngeen bëggoon vérité xam nga ni du ngeen ni du ngeen ni mukk Karim Wade ak waa PDS saisir leen commission d'enquête parce que commission d'enquête ah, amul ñu wax may ma commission d'enquête bu la neexee yaa ngi tooñ waa déglu ma bu la neexee bu la woowee nga bañ kenn du la tëj. Mm-hmm. waxuma la juge de. dëgg la nit ordinaire. woo na Ousmane Sonko te demul demoo woo na Ousmane Sonko te demul sax député la ah non non te demul non rapport bi. Mhm. six mois lay durer. Mhm. un an lay durer. Mhm. rapport boobu mën dañ ko bañ a publier. mais di gën a doy waar. rapport bi su bindoon ni même les juges. sont corrompus mënoo saisir procureur. assemblée mën ko saisir procureur pour dénoncer des faits criminels ou délictuels. kon bu ngeen bëggoon dëgg xam nga loo koy wax da wan wan soupçon yi procureur moo gën a gaaw. procureur enclenché la la procédure. haute magistrature xam ngeen li ngeen bëggoon. ay merci beaucoup ay tappale Amadou jërëjëf. léegi non may ma ma jeexal ci. ci ci lan jeexale amnistie bi allez-y donc nee naa la bu dee Ousmane Sonko day dialogue ak Macky du pour libération détenu il faut ngeen teg contrepartie bu diis. bu mel nan moom laa leen di laaj. tey jii quelle est la contrepartie bu Ousmane Sonko mën a tegal Macky Sall ah, kon amul parce que ñun les positions bi ñu la wax mooy élection yi kenn mënul ubbi élection yu bees d'accord donc léegi nag am amnistie bi xam nga lu ñuy def ñun nee nañ on appelle kon léegi kon léegi da ngeen dem ci élection yi sans Ousmane Sonko te alors que xeex bi moo nekkoon élection du fi am sans Sonko defal ndànk <laughs> Ousmane Sonko moo la nangul nii. waaw man maa tànn Bassirou Diomaye Faye. Mhm. d'accord déglu ma rek. ok gis nga leenaa la lu ndaw lii lu ñu bëgg a jël. mooy d'un problème constitutionnel. Mhm. un problème Macky Sall PDS problème Amadou Ba ngeen bëgg ko teg ci balance porteloo Ousmane Sonko la responsabilité historique merci beaucoup historique d'accord d'un report ou d'une annulation de l'élection merci ñun duñ jënde élection loolu Amadou na leen leer on n'acceptera pas yéen def seen problème maître maître yow sa position ci amnistie bi mu nekk rumeur dégg nañ ko waaye bi mu tukkee ci cadre président de la République est-ce que même yëg-yëg nga ciy am ba tey amnistie boobu. ba tey mais dama wax kii ko procureur sax ba fa porté une plainte waa conseil du dem parce que amul droit entendre leen. ok d'accord am na droit déclencher procédure. amatu droit bu dee.